enchaîne tout de suite ak euh, horoscope bi. et c'est parti. waa ne ngeen torop tudd leen malal. fas ñëw fas karam wax malal ngeen di toog. <laughs> man la malali <laughs> waaw. ñàkk fayda. <laughs> man la malali taa. allez euh, ana petaaw yi. ana petaaw dafa def ñett rek comme ni ngeen di def ci jóg jóob donc may tàmbalee rek ak balance yi nga xamante ne ñu ngi judd en vingt 23 septembre dem ba le 22 octobre de 15h à 15 astafurla de 13h. pes bi la ma doon yëngal de 15 heures ah. de 13 heures à 15 heures ne dinañ seen relation ak li nga xamante ne moom moo di seen ay am di dina leen mettre de bonne humeur ba nga xamante ne dina dàq lépp ci ay soucis yu ñu xëyee woon tey nee nañ aussi euh, nañu sóoraale li nga xamante ne moom moo di seen wér-gu-yaram surtout bu fekkee ay diabétique ngeen na ngeen def bu baax attention nee nañ aussi na ngeen def seetlu bu baax ci li nga xamante ne moom ñi ngeen di àndal parce que du ñàkk dina jéem kenn dina am kenn koo xamante xamante ne dina jéem war leen ci donc fit bi nga àndal tamit nee nañ yow mi di balance dina la permettre ba nga am nag ay euh, entrée d'argent maanaam xaalis boo xamante ne tey dina dugg nee na itam sa couple tey daal dina bouger ndax créativité bi nga xamante ne moom nga xëyee benn problème nag bu la sonal ci li nga xamante ne moom moo di sa liggéeyukaay tani nee na nag nga lijjanti ko balaa muy gën a yokk fii ak suba. <laughs> yow da ngay madu. <laughs> waaw xalaat eh, eh. da ngay madu lu sa yoon. wala Fatou. <laughs> doo dugal ci doo dugg ci lu la dugal. non Fatou dina ma <laughs> donc les scorpions ñoom ñu ngi juddu en 23 octobre dem ba le 22 novembre bii jour. ah ñàkk ngeen fay nag amul lu gën a bon a bon. jàpp ngeen fayda de am lu nii de. scorpion mm. dina am lu nañ dund dégg nga. xam nga non euh, sama petite sœur waaw donc nga déglu bu baax Serigne Modou. sëñ <laughs> Modou bu leen ma ci boolee. <laughs> Euh. donc euh, les scorpions ñoom ñu ngi judd li nga xamante ni moom moo di le 23 octobre dem ba le 22 novembre de midi à 14 dina am lenn loo xamante ne dinañ ko dund donc nee nañ nag tey profité leen li nga xamante ne ci chance bi ngeen am tey pour réglé waat sa mésentente yi nga amoon ak ñi nga xamante ne moo di ay nit wala saa am di jàmb yoo nekkaloon te nee nañ aussi na nga dëgëraatal sa bopp bu baax pour nga mun a dëggal sa xalaat boo xamante ne yaa ngi koy euh, joxe ci biiri mbooloo nee nañ <laughs> àggalil <laughs> waaye <laughs> waaw nee nañu aussi li nga tane ne nga sóoraale bu baax noppaluku ndax dépensé nga énergie bu bare maanaam démb wala ci fan yi nga génn nee nañ nag y a une phrase tout le temps en français que la perfection ne pas de ce monde alors nag tey na ànd ak li nga xamante ne moom moo di indulgence wala compréhension ci mbiru xaalis boo xamante ne da ko bokk ak li nga xamante ne moom moo di sa ay naataango balaa coow bu rëy boo xamante ne dina ci mën a jógee nee nañ na ngeen ibbi tamit li nga xamante ne moom moo di waxtaan ak seen partenaire euh, pour jàmm mën a ñëwaat ci sa biir couple côté liggéey nag euh, nee nañ nag tey dafa mel ni da ngeen a xaw a tayal aloor na ngeen euh, jéem a euh, ngene ngene nege nege bu ñu àndal waaw donc tey nañu jéem dénégisal waaw voilà pour li nga mën a xamante ne liggéey bi ñu tàmbali woon ñu gën koo eggali ñu dal ci dénégisation en tout cas dénégina waaw dénégination xam nga ko waxee mm. donc les sagittaires ñoom it di ngi juddu benn 23 novembre dem ba le 22 décembre de 8h à 10h dina am lenn loo xamante ne dinañ ko dund donc nee nañ affaire yu bare yoo xamante ne dañ ko nar a def dina leen nañ ko sóoraale bu baax nañ sóoraale noppalu parce que dafa mel ni tey ils ont plein de choses à faire en même temps nee nañ tamit nañ moytu fugg bi nga xamante ne moom nañu àndal ba mu nar leen indil coow yoo xamante ne dañ ko nar a ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ay nawleem nee nañ xéewalu xaalis tey waa parce que dafa mel ni xam nga léeg-léeg da ngay xëy tu as plein de choses à faire donc facilement da ngay donc bu fekkee sa yenn nit yi du ñuy ñëwee pression bi ngay nekkalee mun na def ba nga xamante ne da leen di ñàkk kerse te bu yàggee bu fekkee ki nga nit ki indiwul compréhension mun na indi ay wax yu sew donc du coow bu pata mais juste ay ay petit wax yu sew quoi parce que la personne est waaw les sagittaires tey exact waaw good mood good mood <laughs> nee nañu xéewalu xaalis tey kon ex-AIDS mun nga ko am mais côté mbëggeel aussi nee nañ demeewul noonu alors na nga li nga xamante ne moom moo di na nga ci mettre les formes pour mun a amaat jàmm bu baax ci sa biir euh, relation bi nga xamante ne moom nga sekk ak nit yi nee nañ côté liggéey nag moom équilibre bi mi ngi installé wu nànk-nànk dafa mel ne da nga xawoon slow tuuti mais équilibre bi mi ngi ñëw donc tey daal maanaam journée bu favorable pour yow mi nga xamante ne yaa di sagittaire. jërëjëf sagittaire sagittaire

jërëjëf merci merci jërëjëf jërëjëf Mado jërëjëf ci horoscope bi en tout cas yéen tamit mën ngeen sax di euh, wax seen ay signe matin bi comme ça Mado euh, dina leen euh, wax lan moo leen di xaar ci bis bi mercredi 21 mai alors 8h03 mooy doog a jot même si 5 laa gis mais 3 parce que j'ai 2 minutes de retard parce que <laughs> c'est ça léegi heure bi ma am dama ci wàññi 2 minutes quoi parce que la majorité l'emporte ci plateau bi rawee naa leen 2 minutes de de 2 minutes. deux minutes deux minutes deux minutes deux minutes ah. tey montre bi tey montre bi demul urgence. demul urgence ah.